nee na nii la doon reete ah ko yàlla ba xam ne muy jël nee na da ko doon reete kii moom buñ ko woowee du bokk li bi lay bay waaw léegi jëgal dem envoyé. non déedéet.